أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ñoo ngi ba tey ci suura ala imran ci ndimbalal borom bi tey ñuy jël aaya téeméer ak téeméer ak benn aaya 100 ak aaya 101 muy ñaari aaya yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ñu ci jàngal ñaari mbir bi ci njëkk mooy taatu kathirum min al ulama al yahud wa nasara bil axzi bi nasa'ihim wa tawjihatihim wa ma yusiruna bihi ala al muslim tuaddi bil muslim ila al kufri sha'ara bidhalika am lam yash'ur idhan falidha wajaba alxadru kulla alxadri minhum mbokk jullit yi tomb bu am importance la ñuy jël tey tomb boo xam ne sunu boroom subhanahu wa taala def ñu ciy jàngal di ñu leeralal di ñu jubanti di ñu wax ne topp ay xalaat topp ay yoon topp ay orientation ñi nga xam ne ay kàngami yahud lañ ak nasaara di topp seeni laaye biir ak seeni orientation ak ak ak loolu day day indil ab julit day yóbbu ci jullit weddi yàlla tabaraka wa taala gis ngeen tey sunu àdduna bi lu tax jullit ñi mënuñu normal li tax jullit yi mënuñoo jub mooy dañoo bëri ci lu ñu topp ay yoon yoo xam ne ñu ko tëral duñu ay jullit ay xalaat yoo xam ne ñu ko indi duñu ay jullit te jullit ak kudul jullit bokkuñu yoon afa najalul muslimina kal mujrimin ndax da ngeen a bëgg jullit ak kudul jullit yem mënuñu yem mënuñu yem jullit dafa am fu mu war a teg tànkam dafa am fu mu war a tënku dafa am yoon wu mu war a jaar léegi nag ñun bu fekkente ne ku nu gis roy ku nu gis toppandoo ku ñu gis topp ay xalaatam ku ñu gis topp ay doxalinam fu mu ñuy jëmi mooy ilal kufr loolu la ñu yàlla di tere ci aaya bi nekk suñu kanam tey loolu moo tax ñu ne tomb bu njëkk lu ñuy jëlee ci aaya yi nekk suñu kanam mooy taatu kathirun min ulama il yahud wa nasara topp ci ñu baree baree bari ci borom xam-xam yahud yi ak nasaraan yi di jël seeni laaye biir di ndénkaane yooyu ñu koy jël taw jihaat ak seeni jubant yi ñuy jubanti ay orientation fu ñuy xoolloo lu ñuy defloo ak ay yoon yu ñuy joxoñ dafay yóbbu ab julit mu weddi yàlla loolu ngeen gis tey ci àddina bi ñu naan capitalisme weddi yàlla la socialisme weddi yàlla la libéralisme weddi yàlla la ah communisme weddi yàlla la total boobu mooy ban allahu akbar weddi yàlla la bi nga wax léegi lan la communiste weddi yàlla la laïcité weddi yàlla la mu ngi nii tey moom la ñuy dund Sénégal te weddi yàlla la mooy gouverner sans Dieu na dëkk bi nekk état laïque bu ci kenn dugal yàlla te yow jullit nga ñu ne la bul dugal yàlla ci sa dund loolu lan la bokk ci kufru la bokk ak lan ak yéen a ma gën a xam orientation yi ay planning familial ak ah ay waaw parité di ay démocratie ay parité yooyu yëpp kufru la yëpp xalaati yahud yeeg nasaraan yi la ñoo ko indi ci dëkk jullit yi sëllax leen ko jullit yi nekk ci dafa ne mën nañoo mën ngaa nekk ab jullit nekk libéralisme mënul nekk mënul nekk mënoo nekk jullit gëm laïcité mënul nekk moo tax yàlla ne afa hukmul jahiliya yabghuun ndax atte ku xamul dara ku réer yéefir moom ngeen bëgg yéen jullit ñi wa man ahsanu min allahi hukman ana kan moo gën a rafet yàlla ay àtte alaysa allahu bi ahkamil hakimin kon loolu la ñuy jàng tey moo xam nag jullit boobu topp orientation yooyu yëg na ne weddi na yàlla wala mu yëg ne weddiwul yàlla ñaar yëpp a yem bu ko neexee mu yëg ne weddi na bu ko naqaree tam mu xam ne weddi na fi mu nekk nii ñu bëri ci ñun dañuy jàpp ne ñu ngi ci diine fekk li ñu indil moo ñu moo ñu wër ba mënuñoo dund diine wala mondialisation bi xoolal démb heure bi démb xam ngeen ne dëkk bi démb heure yi démb jàkka yi tool li fa nekk nekk tollu nii ci ay nit ah ay benn sàppe ñaari sàppe fan la jullit yi nekkoon ñi doon bëri ay lan lañ ñi doon bëri ay chrétien lañ est-ce que ñaari chrétien ñoo doon jëru bëri ñaari yahud ñoo doon bëri yow ñoo doon bëri ay jullit ña kan moo tëgg combat bi jullit promoteurs yi promoteurs yi est-ce que am na catholique am na yahud ñëpp ay jullit lañ si ngeen tey jii ku taxaw di wax ci làmb ji sax du yëfu diine wala nangam dañ lay mere nit ñi dañ lay xoolaat léegi naa benn promoteur bu mag bi gën a mag ci promoteur yi bi ko benn oustaz ne làmb dafa araam mu ne ko kilifa yu mag yu dëkk Touba ak Tivaouane ñoo may téléphoné naan ma ñoom kontaan nañ ci parce que am nañu mbër diw ak diw ñooy seen mbër waaye ma ne ko dafa juum kilifa yooyu duñu ay royukaay kilifa yooyu téléphoné ko ne ko am nañu mbër diw ak diw mooy sunu mbër kilifa yooyu ci diine ci nattukaay bi ñuy peesee di nattukaayu yonent bi di alquran ak sunna kilifa yooyu duñ fa royukaay kilifa gu am mbër doo royukaay ci islam yow parce que mbër làmb dafa xaram mbër dafa xaram ñu ko jullit di amee nan lay occupé jullit ba jullit bi du bàyyi di jaamu yàlla tol ne jour vendredi nga bàyyi ko ndax làmb tol ne vendredi waxuma sax nga dajale julli yi dégg naa démb kenn ci rapporteur yi dafa ne ustaas yi ak boro ak imaam yi danañ dal suñu kaw mais nag ñu leen di yëgal ñun ay jullit lañ dañuy leb waxtu yi waaye bu ñibbee fay ko dégg naa Bécaye Mbaye loolu la wax tey lañ ma ko xëy di ma ko ne dali ne ma nee na imaam yeeg ustaas yi danañ dal ci kawam dañ dal seen kaw ñoom ñi dem ca làmb ja ndax julliwuñu ajjuma waaye ñu ngi xamal ustaas yi ak imaam yooyu ne ñoom ay jullit lañu ne ñoom danañ bañ a julli tisbaar tàkkusaan timis ba gee waaye bu ñibbee fay ko danga koy yóbbante di ko wax ne yenent bi nee na man jamaa bayna solatayni bi gayri uslin yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na képp ku dajale ñaari jullite amoo ngant faqad ata baaban kabiran min abwaabil kabairi yeneen bi nee na indi nga ubbi nga bunt bu rëy ci buntu bàkkaar yi alquran ne inna salata kanat ala almuminina kitaban mawqut julli dafa am waxtu julli dafa am waxtu du heure bu la neex nga julli julli dafa am waxtu boo amoon soxna ñaata yoon ngay lekk ci journée bi lu lu jaadu du ñett nga xëy mu xëy suba fajar indil la ndékki bi añ bi reer bi nga ni ko lii nag mu ne man nii laa ko mëne ndax mi de guddi du ma fekk ku nangu takk soxna su mel noonu fii yëkkati sa loxo soxna soo xam ne sa repas yi benn plat rek la ci mën a mën a indil ñëpp dana la koy dajalee teg ne la bii añ bi la mu ngi nii ndekki baa ngi nii mburu bi ak kii bi la ceeb baa ngi nii cere jaa ngi nii nga ne ko cere ji lan la mu ne la pour reer la ceeb bi lan la mu ne la pour nga añ te yaa ngi fajar ku yéen ñi ci jàkka ji ku nangu am soxna bu mel noonu bu lay dajaleel repas yi rek xam nga kenn nangu après ngeen di bëgg a dajaleel yàlla waxtu yi loolu bàkkaar la mbokk yi et puis ngant sax la ñu wax mais est ce que làmb ngant la est ce que làmb dafa araam moo tax di xam li ngay wax du ñu xam li ñuy wax parce que jànguñu parce que caaxaani addina yi moo leen ëppal importance ay fo moo leen ëppal diine yàlla tabaraka wa taala fo fo mbokk yi ñaareel bi al ismatu fi tamassuki bi kitaabillahi wa sunna ku bëgg a mucc ndax da ngeen a bëgg a mucc kan moo bëgg a mucc ku bëgg a mucc jàppal ci alquran ak sunna foofu mooy al isma tey ci kaw suuf lii musal jullit yi lenn kese la mooy téye ci téere yàlla bi ak seen sunna yonent leneen loo topp dañ lay da ngay sànk leneen loo topp rek réer ga parce que ki nga topp ak li nga topp dañ lay nax dañ lay si dañ lay réeral xoolal ñu fees démb stade bii rek amul benn sëriñ bu taxaw naan leen ragal leen yàlla xam nga lu tax parce que après dañuy dem joxe ji addiya waaw bu bu waa ji gagné la ñaata combat bi démb ñaata million la cent vingt cinq millions bu ci xaafee benn million ne sëñ bi suukar ak warga macha allah mu ne ko est-ce que tàllalal loxo yi yal na nga yàgg daan peu peu peu peu. cent vingt cinq millions nga joxe ci benn million bi addiya xam nga ki ñu joxe addiya million moom am nga loo jëndee warga ak suukar weer wala mën na jënd warga ak suukar de moo tax duñ ci wax parce que dañ leen ci dañ leen ci xàppatil dañ leen ci coppatil seen wàll. loolu moo tax doo fi dégg dara lu araam ba kilifa yi di ci wax parce que dañ leen ci jox loolu musiba la kilifa diine yàlla da lay jaral diine ji da lay jaral lu ne da lay jaral amoon na de waaye léegi moom dafa amatul kilifa gu daan wax ngir yàlla kese amoon na Sénégal de waaye ba ñooñu demee lañ am ay caaxaankat noonu yàlla wattu kon daal tey jii ku bëgg a mucc al ismatu rawukaay bi muccukaay bi fi lay aar fi lay ñoŋal mooy fan bi tamassuki bil kitaabi wa sunna mooy jàppal ci téere yàlla jàppal ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa man tamassaka bihima lam yudil képp ku ci jàpp ci ñoom ñaar doo réer parce que ñoom ñaar ñooy peesakaay xam ngeen lan moo tax tey nit ñi réer mooy ñàkk a topp alxuraan ak sunna ki ñu bàyyiloo julli la moo tax ñu bàyyiloo ko julli parce que xamul alxuraan ak sunna ki ñu bàyyiloo woor lu tax mu ñu bàyyiloo ko woor parce que xamul alxuraan ak sunna ki ñu tereloo julli jumaa ki bàyyi julli ji jumaa dem seetaani làmb lu tax mu def ko parce que xamul alxuraan ak sunna xamul importance jumaa kon ñàkk a jàng diine ñàkk a xam alquran ak sunna day alak jullit yi looloo tax mbokk yi sunu aaya tey yi ñaari aaya yi ñaari mbir yi dong la ñuy jàngal mooy topp borom xam-xamu yahuud yi ci seeni xalaat ak seeni gisin day tax ab jullit nekk yéeférti du ko yëg beneen bi mooy téye ci alquran ak sunna mooy tax jullit rëcc ñaari aaya yooyu moom la nu sunu borom subhanahu wa taala di jox tey di leeralal ci téeram bu tedd bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يقول الله جل وعلا بورنينا يا أيها الذين آمنوا أين نجم عبد الله بن عباس نينا بو ديجي بعد بوبو دي جيب تحول dafa mel ne ku doon dawal oto feu rouge tàkk ci kanamam nu muy def taxaw rek soo déggee yaa ayyuha alladina amanu taxawal daf lay wax defal wala mu mu ne la bàyyil taxawal yaa bi xarfu nidaa la aji woote mooy woote kan mooy woote yàlla ñan lay woo ñi ko gëm yàlla mooy woo ñi ko gëm lan la leen di doye mu ne in tutiicu su ngeen toppee in bi harfu charte la harfu charte la ci arab in tutiicu bu ngeen toppee fariqan kuréel benn mbooloo min allazina ci ñi nga xam ne uutul kitaaba yàlla joxoon na leen ay téere mooy les gens di livre mooy yahud ak nasaraan bu ngeen leen toppee yaruddukum danañ leen delloo baada imaanikum ginnaaw seen ngëm kaafirina ngeen mujj nekk ay yéeféer lii leer na de bu ñu yemoon fi rek doy na lii la gars yi naan texte sans commentaire yàlla woo ñi gëm yàlla woowul yéeféer yi woowul doo ke- kan la woo yaa ayyuha allazina amanu la wax ee yéen ñi gëm naa ngi leen di yëgal ni su ngeen toppee yahudi yi ak nasaraan yi danañ leen delloo jële leen ci seen ngëm def leen ay yiifir ah mbokk yi topp nañ leen wala topp nu leen ah topp nañ leen wala topp nu leen topp nañ leen léegi nag nga topp leen ba pare nga ni jullit nga mu nekk yàlla daf ko wax dafa leer lii moo lay wan ne ñun ak ñoom bokkuñu mënuñu nekk mënuñu nekk mënuñu nekk mënuñu bokk xoolal tey jii xoolal bi may ñëw léegi léegi am na benn bokk maan loolu mën na ma seede benn xale bu jigéen boo xam ne li mu sol ci ween yi la yem maanaam dënn bi ba ci bopp bi dara tegoo ci xoolal sedd bi ma ni kii waaw kii moom xanaa yëgul li xaw xanaa booy futtee ko sax di def yaramu neen bokk ba sedd jot ma ne ko xoolal nit ñi dajal ñëpp a ngi ku nekk góor yaa ngi soli jaget ma ne ko nit jigéen ñi ñu ngi muuru ñu ngi ay kol teg seen kaw ku nekk ngi kof kof moom mu ngi naan ak yaramu neen allahu akbar te kooku rek la est-ce que kooku rek la ñaata jigéen tey ñaata jigéenu jullit yéen Sénégal gii jigéen ñi tiitaluñu leen jigéen ñi kan lañ topp yahud yi wala nasaraan yi wala jullit yi diine jullit yi jigéen bu def yaramu neen diine kan la diine yahud ak nasaraan la yéen tey xale yu góor yi ni ñuy solo seen tubé yi tiitalu leen ah xew-xew yi nekk ci àddina bi tey tiitalul jullit yi ci wax ji yàlla wax yàlla woo ñu gëm bu ne woon yaa ayyuhan naas sax ñu ne yàlla ñëpp la wax waaye dana yaa ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm maa ngi leen di yëgal ne in tutiu su fekkente ne topp ngeen fariqan benn kuréel ay taifa min alxaaqidina ala alislaam ci ñi nga xam ne dañoo bañ lislaam alaamilina ala alkayd ñiy fexeel lislaam guddig bëccëg wal makri bihi di fexe ay mbir pour rendi lislaam ak ren di waa lislaam ngeen topp ñooñu fan la leen jëmee mu ne yaruddukum danañ leen delloo dañ leen delloo baada imaanikum gannaaw seen ngëm kaafiri na ngeen nekk ay yéeféer ay yarjiukum ila al kufri baada imanikum danañ del delloo ca kéeféer ginnaaw ba ngeen nekk ay julit moo tax tey nga gis koo xam ne day julli fajar dellu ca kéeféer ga ba tisbaar jot mu ñëwaat julli delluwaat ci kéeféer ga ba tàkkusaan jot mu ñëwaat julli delluwaat ci kéeféer gi ba timis jot mu ñëw julli delluwaat ci kéeféer gi gee jot mu ñëw julli delluwaat ci kéeféer gi ba fajar jot mu ñëwaat julli boo ko waxee mu ne la jullit laa gënoo maa nekk jullit billahi jullit laa billahi laa la wax allahu akbar waat fuñ jëm boo ko ne lii nga bëgg a dugg wala lii ngay def yàlla daf ko tere mu lànk lii ci aaya yi nga xam ne loolu gaa yi naan gazwu saqaafi wala gazwul fikri mooy l'agres agression culturelle mooy aaya yi ginnaaw ba tubaab yi xamee ne gazwul askari indi seeni armée di bombardé mënatul julli di dara benn tubaab benn journaliste français day nettali mu ne moom dafay waaru Afghanistan ñu ne ko lan moo la jaaxal mu ne dama gis ay nit ñoo xam ne ay ay bomb ñu ngi leen tiim bomb yi di wadd mu ne ñu taxaw di reenaan bomb yaa ngi nii di ñëw mu ne ñuy reetaan mu ne ñii dañu ma jaaxal kon ñeneen na ragaluñu bomb bi tubaab yi xamee ne jullit ñi ragaluñu bomb ragaluñu ay kasu ragaluñu ñu rey leen ragaluñu ragaluñu ragaluñu lu ñu def mooy fexe jaar yeneen yoon pour génn jullit ñi ti diine te duñ ko yëg mooy li am ni jullit bi di julli mais gëm laïcité di ci rey boppam ne daf ci daf daf ciy dee comme li am Égypte tey président bi tey lañ ko doon jugé xam ngeen lan lañ ko doon jugé bu ñuy jugé nit ana waa droit de l'homme xanaa war na nga war nga war nañ lay indil benn seize nga toog nga ñuy wax ngay dégg mais dañ ko dugal ci benn kaafu verre kaafu verre bu ñu tëj day gis nit ñi mais du dégg kenn dal muy wax moom buy wax kenn du dégg ci biir kaafu verre lañ ko tëj parce que jullit la wala adduna bi yëpp ñëpp noppi parce que jullit la parce que dafa bëgg a samp état islamique mais xam nga lu garaaw sax mooy bu fekkoon noonu sax ñoom noonu la ñu war a def de noonu ñoom la ñu nekk ñu ngi ci mooy bu fi islam sampu loolu mooy mooy mooy yoon mooy loi parce que gëmuñu diine waaye ñun ñu gëm diine te diine yitteeluñu mooy wax bi ba nga xam ne sax suñu benn mbokk buy xeex pour diine taxaw sax mu muy am problème ñun duñ ko yëg duñu yitteel di julli di ko ñaanal sax duñu intéressé ba da ngay gis jullit ñi leer di dox di kër kër ji fekk seen benn mbokk ndeysaan moom mu ngi ci problème ñoom ñoom yëguñu ko sax loolu mooy agression culturelle dëgg Senghor moo nekkoon Sénégal waa Rome mus nañ ko woo ba mu ñëw ñu ne ko yow yow yaa jiite Sénégal waaw ñu ne ko yow chrétien nga yaa sa soxna waaw ñu ne ko lu tax mënoo fexe ba pays bu nekk pays chrétien christianisme mu ne mënuma ko de ñu ne ko waa léegi loo mën mu ne dinaa fexe ba ñu nekk mauvais musulman ay jullit yu bon est-ce que nekkuñu ay jullit yu bon tey jullit yoo xam ne diine lislaam yitteelu leen seen diine seen diine ñoru leen jullit yoo xam ne lu nekk mën nañ cee dee mu lu nekk bëgg nañ ko lu nekk jaral na leen a sonn ba mu des seen diine loolu mooy mooy lu am tey jullit yoo xam ne xëy suba sax wax asalaamualeykum complexe la ci ñoom waxee la dana xaw ne waa kii lu muy arabal nii bala ñuy kontaan nga nekk benn tubaab nga nekk benn tubaab ñëpp la d'accord waaw waaw macha allah mais nanguwuñu nga nekk jullit ndeysaan allahu akbar waaw fu ñu jëm fu ñu jëm te lii yàlla moo nu koy wax yàlla nenu su ngeen toppee lenn ci ahlul kitaab mooy yahud ak nasaraan danañ leen def ay yéeféer waaw ñoom seeni loi yi ñu indi lépp benn dëppoo wu ci ak lislaam benn luwaay Sénégal ban moo ci dëppoo ak lislaam wax leen ma ko luwaay Sénégal luwaay yi ñuy àtte ban moo ci dëppoo ak bu bu islaam benn dara amu ci boo nekkee jigéen sax bëgg am carte d'identité wala passeport ñu ne la da ngay mureeku waaw xanaa nga daje keeg ku baax koo xam ne dese na fitra mu nangu loolu waaye bu dee ñenn ñi ñu ne la non non fekk ba man fii du ma ko def ah ngay dindi sa bopp gëmul gënu leen gën gëm gëm nit ñi yàlla di la jéem a terroriser waaw yooyu la ñuy jéem a naxaate waaw gënoo gëm nit ñi ñu ñëpp ay jullit lañ waaw ñu ñëpp ay jullit lañ dañuy julli julli dafa tax a nekk jullit yàlla neen am lu ñuy julli safara laa leen jëme jàng ngeen fa waylun ñu safara lañ jëm te ñu ngi julli kon julli taxut a bañ a lakk waaw sunu borom subhanahu wa taala mu ne waaw yéen wa kayfa takfuruuna naka ngeen di weddee problème mooy naka naka yéen naka ngeen di weddee ah wallahi waruñoo wedd kayfa takfuruun naka ngeen di weddee yàlla formation bi doomu aadama jaar ci mooy alquran xoolal xoolal ñoom bilal xoolal ñoom ammar xoolal ñoom suhayb xoolal sahaaba yooyu nga xam ne bi yonent bi tàmbalee woote màkk alquran di wàcc nga xam ne liy wàcc ay ay aaya saar yu ndaw ñoom liñ ci mokkal rek formation bi doy na leen ñu war a xam ne këng lañu war a def kekk amatul dengi dengi ñaar rek lañ teg seen kanam buñ leen reyee ñu dugg àjjana buñ leen bàyyee ñu samp diine ji ñaar yooyu rek la amul pertement soo ma bàyyee ma dund diine soo ma reyee ma dugg aljanna moo tax lan lañ leen def dóor nañ leen jam nañ leen diri nañ leen lakk nañ leen mais kan ngeen ci gis ku dellu ginnaaw ñun kenn dóorunu wala kenn tiitalunu kenn xasuñu kenn tëjuñu kenn rayinu ba pare ñu ñu nekk ay yéeféer ñee dañ leen doon dóor dañ leen doon buggal dañoo rey Ammar Yaasir rey Sumayya Ammar ñu dóor ko ba yàlla fóot ay sagaram Bilal gis ngeen jàngeen Suhayb bu ñu làkk ko mais ñooñu kan moo ci dellu ginnaaw ñëpp kenn alquran sax mooy nettali keroog bañ leen waxee inna nnaasa qad jamaw lahum faxsahum tey ngeen dee nit ñaa ngi dajaloo xam nga lu ñu wax qaalu xasbuna allahu wa ni'ma alwakil ñun yàlla yàlla lan faale yàlla doy nanu keneen suñu yoon nekk ci yow parce que alxuraan moo pare ci ñoom ñun boobu alxuraan day wàcc ñoom ñuy jëfe ñun alxuraan bi yëpp global a ngi nii munu munu munu munul munul dem te boobu ñoom amuñu alxuraan kaamil bi ay aaya lañ am mais ñu ngi koy dund ñun ñu am kaamil bi munul dem benn borom xam-xam di leeral loolu mu ne lu ko waral mooy ñee dañoo amoon ngëm di xaar aaya yi wàcc ñu exécuté ñun nag dañoo am alxuraan di xaar iman xaar ngëm ñun am nañu alxuraan bi mi ngi nii mat na sëkk waaye ngëm moo fi nekk leneen dañuy toog di xaar ngëm waaw kañ la ñuy gëm nag léeg gis kenn mu ne non xaar ba ci kanam quoi gëmaguma xaar ba ci kanam waaw loolu ngay dégg ba ci kanam quoi waaye doo julli ji non ba ci kanam temps yi xam nga xam nga ah waaw ay ainsi quoi et puis noonu lañ ko ay ainsi xam nga nu mu demee quoi waaw xam nga ins bi mun a guma mun a guma dund li ngay dund yàlla yàlla jubal ay Sénégal yow yàlla engagé lañ nga koy dégg wax yow la tere muuru ah xanaa ci xaar ma am jëkkër doo xaar tuuti loolu la Sénégalais yi gëm mooy bala ngay jaamu yàlla ngay màgget moo tax ma ne la mooy gëmuguma xaar ba ma gëm ba gëm ba ci kanam kañ ngay gëm ba ci kanam ci kanam tuuti ñee nag ñoom dañoo ñëw rek gëm yéen te dafa ñu gëm waaw benn borom moom nee na mbir mi akara la ku bëgg akara ngay ñeme kaani allahu akbar da ngaa bëgg dugg àjjana da ngay ñeme iman ñeme ngëm waaw mais ngëm moo fi nekkul moo tax yàlla ne ñu kayfa wa kayfa takfuruun yéen naka ngeen di wedde amuleen droit lu tax wa antum tutla alaykum ayatullah ay guddeeg bëccëg ñu ngi leen di jàngal aaya yàlla yi ba pare ngeen di weddi ah yàlla yi ku mu formé wul dara dootu la formé aaya yàlla ah téere bi ku mu munul defar wallahi doo baax programme Marx du defar nit programme Darwin du defar nit programme Lénine du defar nit programme Freud ah noonu la du defar nit mukk ci àdduna programme Socrate du defar nit programme ah Kant du defar nit xoola kii ne nit golo la xam nga ne ko programme du defar nit hmm? ku gëm ne nit golo la programme boobu foosé na ba pare nga gëmloo ay nit yéen seen maam golo la programme boobu koo gëm nooy defaree ay nit nit ñi duñ defaru parce que yow sa programme programme programme golo la te ñun ay nit leen allahu akbar waaw noonu yàlla jubal wa kayfa takfurun naka ngeen di weddee te wa antum yéen ñii tutla alaykum ñu ngi leen di jàngal guddi ak bëccëg ayatullahi aaya yàlla yi te bi ci gën a doy waar mooy wa fiikum rasuluhu yonent baa ngi dund mu ngi taxaw seen kanam keroog aaya bi kañ la wàcc ci ñoom mooy keroog ba benn yahud ñëwee bëgg a jaxase aws ak xasraj yonent bi nee na cëpp Medine rek mbokk loo leen mbokk loo taalafu ñu miinante wa taxaabu ñu bëggante wa taaaxu ñu mbokkoo affaire bi métti yahudi rek ñu ne xaaral ñu jaxase leen ñu ñëw rek am na ñu fi dóoroon seen imaam am na nangam ak nangam ak nangam rek xol yi jóg gaa yi dellu ci kër yi ci cumukaay yi jël jaas yi takk ñëwaat ñu wax ko yonent bi rek yonent bi daw ñëw ci seen kanam taxaw ci ñoom taxaw ci ñoom di wax ak ñoom di wax ak ñoom ba gaa yi wàcc fes fas yi gaa yi delloo jaas yi ci mbar yi ñoom ñoom ñu kaw ñëw waaf ci kanam yonent bi alayhi salaatu salaam toog di jooy ma yàlla nee na wa fiikum rasuluhu yonent baa ngi taxaw seen kanam ngeen bëgg a weddi yàlla ñun bu fi yonent bi nekkul tey sunna ma ngi nii sunu kanam ñu ne la yàlla nee na yonent nee na yàlla nee na yonent nee na yàlla nee na yonent nee na te mënunoo gëm wala wala duñu wax loolu tey lu gën a doy waar sax mooy am na ci ñun ñoo xam ne da ngay dégg ñu ne bu ne kenn yàlla nee na yonent ne bu nu ko kenn wax gënu leen ñoo gëm yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla gënu leen gën kenn yàlla waaw et puis yonent bi yonent ñëpp la ñëpp a ko bëgg du yéen rek waaw ñun dañ ko bëgg comme yéen waaw su ngeen ko bëggee ngeen gëm yàlla ñëw leen ngeen def li yonent bi wax alquran lan la wax qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni su fekkee li ngeen di wax dëgg la bëgg ngeen yàlla kaa leen topp ma man muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ngeen ko defee yuhibbukumullah yàlla bëgg leen waaye duy woote wi rek bëgg yàlla te jamono jooju ñuy woote wu ne bëgg nañ yàlla bëgg nañ yonent lan mooy manifeste lan mooy wane loolu ay sabar ak ay ndënd waaw ay sabar ak ay ndënd mooy wane ne bëgg nañ yàlla ku bëgg yonent jógal yëngu rëngata rëng ku bëgg yonent jógal yëngu di di ñëpp jóg di fecc loolu mooy wane bëgg nañ yonent yoonu la yonent bi doon wax ne ku ma bëgg jógal fecc da ngeen mës a gis benn benn hadis yonent bi ne ku ma bëgg jógal fecc ku ma bëgg jógal yëngu ah Sénégal moo neex diine boo xam ne fecc kese kese guddi bëccëg da ngay gis ay rajo yu ñu takk takk san ba 4 heures du matin dañuy fecc rek sabar yaa ngi tëgg ñi ngi fecc du dégg nodd ba di- ba julli góor ñaa ngi fecc jigéen ñaa ngi fecc ñoo ngi tux di naan sexaw oh ba fajar jot yal nañu yàlla soppi loolu du diine diine mooy lii gis nga aaya bi aaya yi lii moo formé woon saxaabatul kiram lii moo defaroon nit ñu baax ñi gis nga li leen defaroon ñoom wallahi suñ ko bàyyee duñ defaru dañuy nax suñ bopp coow lay bari danoo bëgg baax danoo bëgg dund diine li taxoon ñoom bilaal ne keng benn borom xam day nettali nee na am na benn benn dëkk boo xam ne ci dëkku lislaam yi tubaab bi fa njëkk a dugg wàcc ci hélicoptère avion am jullit yi taxaw di ko xool mu wàcc ñëw wax ak ñoom bay yéegaat dañoo jël siwo fi mu tegoon tànkam yi ñu tibb ko tibb tibb tibb tibb tibb ba ñu yegg ci avion bi ñu ne ko yóbbaale suuf si nga yóbbaale suuf si yóbbaale suuf si mu ne leen lu tax ñu ne ko suuf si nga dëgg dafa ñàkk sens suuf si nga dëgg dafa ñàkk sens yóbbaale ko bugguñu bugguñu bugguñu fi nga dëgg suñu fi bàyyee suuf si mu wàll beneen suuf si ak kéefir yóbbul ñun bugg soxla wuñu la kenn ki benn waay la boo xam ne Soudan kaw kaw dafa amoon aajo ci ville bi mu bàyyi ko ci ville bi mu ñëw fekk ci àll ba mu ñëw ci ville bi fanaan bët set mu ànd ak benn mbokkam bu bu koy yóbbu ci aajoom boobu mu réglé ji ko mu fekk benn anglais taxaw policier anglais taxaw ci carrefour bi di defar oto yi di siffle yi moom musul gis loolu ak tenue beeg cap beeg siffle bi dàll yi mu xool ko xool ko ba ci àgg mu ne xaritam bi kii kan la mu ne ko kaafir rek waa ji xam kii kan la mu ne ko kii di ab yiifir la waa ji xam gis nga bi ñu ko yéenoo delloo ko bi mu ximmilu ko mu ne ndax yiifir am na ci kaw suuf muy posé question mu ne ndax yiifir am na ci kaw suuf ah allahu xoolal te boobu jamono yooyu jamono xoolal tey ñu mënuñu woon nangu nit di nekke nit ñàkk jom bay weddi yàlla ku ku weddi yàlla ndeket war naa am ci kaw suuf wala julit julit bu sàggane diineem comme ñun nii tey ñu ñu sàggane suñu diine ci suñu lépp moo tax mbokk yi foo ñu takku gis ngeen di ñëw ci dars yi am na importance de waaye foog ñu takku foog ñu am ay formation yu ne keng foog ñu bañ a xeeb suñu bopp gis ngeen parti yu politique yi ngeen di gis yu ndaw ndawaan yi dañuy dem ba gouverner parti Macky Sall bi ñaata at la am gouverner ñaata at la am est-ce que bi muy judd amoon naat bi muy gouverner am naat ah waaw xoolal PDS ñaata at lañu xeex gouverner lu tax ñooñu ni ñuy sonnee pour seen caaxaan yi samp jullit yi mënuñu ko sonn pour seen seen dëgg gi samp xanaa xamu leen caaxaan bu ñu organiser moo gën dëgg gu tasaaroo xam leen loolu caaxaan laa wax ay fen lan moo tax ñuy jënd fen yi fen yi nekk ci mbedd yi lu tax ñu koy jënd dañ ko rafetal wala mees ni mu ni mu ni mu araamee mais dañ ko jël rafetal ko ba mu rafet liisal ko ba mu liis dugal ko ci ay paquet utal ko ay moto ak ay oto di ko publicité ba sa jabar bëgg ko wala est-ce que boobu rek la xoola butal sàngara sàngara ni mu araamee ñu ko jël def ko ci ay kees yu luxe butal yu rafet utal ko verre yu rafet utal ko sax ku koy servir est-ce que xam ngeen am na ñoo xamante ne loolu dong la ñuy jàng ci àdduna nu ñuy servir sàngara xam ngeen loolu nu ñuy téye butéel bi gant bi nu ñu leen koy solale soo téye kaas bi nu mu lay sottile fan la war a yem xoolal caaxaan yooyu ak yeneen ak yeneen ak yoo xam ne yéen a ma ko gën a xam kon sunu dëgg gii dañ ko war a gëm waaye duñ ci yem dañ ko war a dund waaye duñ ci yem waaye dañ ko war a dundal mooy tasaare ko ku nekk nga tàmbali sa bopp sa njaboot say xarit sa koñ environnement bi la wër loolu mooy tasaare diine loolu moom moo lay dimbali pour diine tas ku nekk boo conscientiser ki nga dendal sa xarit say mbokk su ma defee noonu kii def noonu kii def noonu kii def noonu kii def noonu ñun ñii ñëpp balaa déwén yàlla dimbali nu wa kayfa takfuruna naka ngeen di weddee wa antum yéen ñii toog di ma dégg tutula aleykum ñu ngi leen di jàngal guddi ak bëccëg ayatullah aaya yàlla wa fiikum mu ngeeg yéen rasuluhu ndawam yonentam bu mu yónni ci yéen yàlla nee na maa ngi leen di yëgal wa man yaatasim billah képp ku ngoy ci yàlla jàpp ci moom kooku na yëg ne faqad hudiya jubal nañ ko ila siratin mustaqim ci yoon bu jub bi allahu akbar wa man yaatasim billah képp ku ngoy ci yàlla al itisam mooy ngoy mooy atamassuku bi sidda nga téye mu dëgër su ma la ko doon leeralal mooy benn waaye bu rëccee dix-neuvième étage muy wàcc dajeeg benn buum mu téye buum bi nu muy def buum boobu da koy téye benn bara nu mu koy téye ah nu mu koy téye benn loxo la koy téye benn baaraam da koy kepp ak ñaari baaraam yi da koy laxas nii nu mu koy def allahu akbar loolu moo tax nga dégg ñu ne kuy dee ci géej su fekkee yàlla sëwewu ko ba mu lab buñ koy génne duñ fa fekk nopp te fekk nopp yi dagg lu tax moom mooy xëcc nopp yi ba nopp yi dagg parce que da ciy jàpp dafa ne am na fu mu jàppandu kuy xëcc ba mu dagg ndax day jàpp day yaakaar ne am na fu mu jàpp loo mën a ñu ne la booy sëfe ku lab bu ñëw ci kanamam parce que bu la jàppee yéen ñaar ngeen dee yooyu wiiri ci ginnaawam mooy dafa nekk ci danger léegi nag ñun ñu nekk ci danger yàlla nañu waman yaatasim billah képp ku jàpp ci yàlla kooku de danañ ko jubal faqad hudiya kooku danañ ko baaxal danañ ko jubal ila siratin mustaqim ci yoon bu jub bi waaw taxaw leen fii bu leen dem de ñun ñëpp nañ taxaw fii ñaata yoon nga taxaw ci kanamu yàlla tey tey ci journée bi naan ko yàlla teg ma ci yoon bu jub boobu ñaata yoon nga ko wax bi nga yeewoo suba ak léegi ñaata yoon nga taxaw ci kanamu borom bi naan ko yoon bu jub boobu nga ni ku jàpp ci diine ji di nga ko ci jaaral ñaata yoon nga ko wax yàlla pour mu teg la ci ah lu mu dee dee fukki yoon ak ñett ñaan nga ko treize fois pour yàlla teg la ci yoon boobu waaw yàlla ne la boo jàppee ci si man ma teg la ci yoon boobu te yaa ngi yow yow loolu nga bëgg ba taxaw di ko ñaan treize fois xanaa doomu aadama sax boo ñëwoon ci moom di ko ñaan mille francs treize fois ci journée bi may ma mille nga demaal ba caag ne ko may ma mille nga daw caag ne ko may ma xanaa ne am waxuma treize fois nag nga taxaw naan yàlla ihdina siraatal mustaqim wala waxoo ko bi nga jullee ñaari rakka fajar ak sa ñaari rakka farat muy ñaata ñeent boo ci boolee salaatu duha julli yoor yoor boo ci boolee avant tisbar ak tisbar après tisbar avant takkusaan ak takkusaan timis après timis avant gee gee après gee nga boole ci sa qiyaamul layl ñaata yoon nga wax yàlla ihdina siraatal mustaqim boole ci sa safa witre lii yëpp ñu taxaw naan yàlla yàlla ñu teg ci yoon bu jub bi te mënunoo jub ah parce que ñoo jéemut a jub yàlla nee na wa man yaatasim billah faqad hudiya xam nga lu tax mënuñoo jub yàlla ne boo jàppee ci man laa lay jubal ci yoon bu jub bi léegi nag yow nga jàpp feneen ba pare naan yàlla na siraatal mustaqim de
jàpp ci lay si fekk bi nga waaw yaa ngi jàpp ci lay si de benn kayitu pays mi mu ngi sa poos yaa ngi ci banque riba bi yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi ci après nga naan yàlla ihdina siraatal mustaqima de siraatal lazina an'amta alayhim yàlla mu da ngay font rek xanaa déggoo ma ni wa man yaatasim billah yow jàppoo ci man soo bëggee loolu da ngay jàpp ci man ndeysaan da ngay yëg oto ñu ne la jafandul ci weñ bi jàppal ci kaw mooy pour lan pour ma daanu allahu akbar yàlla nee na sama diine bi ku bañ a daanu jàppal ci man day na yow jàppoo ci yàlla nga ne nga ne nga ne da nga nekk ci lu leer wa man yaatasim billah képp ku jàpp ci yàlla faqad hudiya yàlla nee na dinaa la jubal dinaa la orienté dinaa la baaxal ila siratin ci yoon woo xam ne mustaqim dafa jub xocc amul benn lu dëng daal moo tax lu ngeen gis képp ku jàpp ci yàlla ku yonent day jub Sénégal tey bu fekkoon ne politiciens yi ci yàlla ak yonent lañ jàpp kon du ñu am problème mu milliard cinquante milliards dix milliards quatorze milliards alal joo leen jox ñu sàcc ko politicien bu gëmul yàlla yépp sàcc la waaw réew moo xamante ne ay politiciens ñoo ko jiite xam nga lu ñu lay wax politique eggul àllaaxira booy affaire yi lekkal profitool de boo demee rek keneen bu ñëw profitool waa ji daa dem gas benn foos karole ko def ko firgo dugal ci milliards yi toog waaw daa def benn dal ci kaw bu bàyyi ba xaaju guddi mu génn kubéer gi dugg ci biir di xool mbir yooyu jàkkaarloog milliards yi naan ni allahu akbar sama problème jeex na Idriss Idriss Seck moo ko nettali de nee na Abdoulaye Wade bi mu njëkkee dugg pale dafa woo Idriss Seck mu ñëw mun a ko tegaleel ma ma xool milliard ñu ubbi kees gi mu ne mu tegale ko ba mu nekk milliard mu ne ko sunu problème jeex na gis nga sunu problème jeex na sa problème jeex na mais problème mu Sénégal ak réew mi jeexul ay wax ji ndeysaan kooku wute naa ko Omar ibnu Abdul Aziz kooku wute naa ko Omar ibnu Xataab kooku wute naa ak Seydina Ali ndeysaan ndeysaan xoola ñooñ biñ jiitee jullit yi xoola Omar moo tax feek fexewu leen pale bii ñu tabax ci jàkk ah seen réew mi du dem lan laa namm ci ñu tabax ci jàkk lan laa ci jublu mooy ku julli fajar yitteel mu jóg di julli lan laa namm ci ku julli fajar yitteel mooy am imaan ba tabax pale juma mooy su boobaa dina xalaat réew mi ndax kooku xalaat na yàlla yàlla yitteel na ko waaye ñoo xam ne korite ak tabaski ngeen leen di gis ñuy julli ajjuma sax du ngeen leen gis te ñuy ay jullit di organiser ay combat ci ajjuma xam ngeen ne réew moom du dem mbokk jullit yi lii mooy sunu dar sa tey bu amee ay njuumte ñu ngi koy jéggalu sunu borom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.